am naa daañ ma jéggal ñi déggul wolof bu baax ndax li ma bagg a wax ci wolof laa ko bëgg a wax waaye am naa rafet njort nit ñi ci bi dégg nañ tuuti tubaab ci tuuti wolof di nuyu Serigne Cheikh ak Serigne Abdou di jotal nuyoo xalifa bi ak njaboot Cheikh Seydi Hadj Malick yëpp suñu contribution lu gàtt lay doon ci li ñu inspiré ci al Amin Kebe ak ci Bakary sàmm Destin dafa waxoon ni Malick Sy est un homme exceptionnel une lumière éclatante une source intéressable un pédagogue hors classe une référence sans tache un symbole de Sénégal loolu li koy jëmmal ci li ma jëlee seen wax yàlla daf ne arrahmaanu allama alquran xalaqal insaana allamahul bayaan arrahmaan allama alquran ñett yooyu mooy départ Cheikh Seydi Hadj bay marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaqun laa yabgiyaan moo moodo xamal nañu baxru nubuwati ak baxrul futuwati ñoo daje mais baxrul futuwa xëccoowul ak baxru nubuwa mais baxru nubuwa xëccoowul ak baxru futuwa moo tax yuxruj minhuma al lulu al xaqatul ahmadiya wal marjaan ak xaqatul muhammadiya foofu alquran dafa jàngale bay jeexal wax yont bi comme enseignement la ak nu ñu fexe ba garde téere moodo yi alquran wax yont ñetti xul daf ne ko xul xul xul tëj alxuraan xul huwallaahu ahad xul aoudu bi rabbi naas xul aoudu bi rabbil falaq tëj alxuraan ji pour nga xam ne enseignement la moo doo war a doxal nee na comme arrahmaanu allama alquran nag ñaara am at taalim allama alquran bil bayaan wa allama alquran bil banaan jàngale day am ci wax mu leer ak ci bind Seydi Hadj Malick moom li mu gënoon a préféré mooy bind te mooy xilaasu zahab fi seeti xayri arab comme ci chiffre ki njëkk a jël xaraf def ko chiffre wax ci soxlaam mooy Mouhamad Shakir an Nahlaani moo do jël xilaas bi xam ne ñaar am sirul xarfi ak sirul adat moo war a jawharul kamal amul turu Mouhamad parce que sirul xarf lay dox mais salaatul faati am turu Mouhamad parce que ci sirul xarf lay dox benn dox ci sirul adat moo do ne kon xul 130 la boo xoolee jawhar ñett la am muy aynul rahmati ak aynul xaq ak aynul maarif al aqwa xul ju njëkk ji mooy dellu ayn waxal ñi nga xam ne ñi ngi yem ci aynul xaq ñooñu mooy ahlul basaa'iri ñooñu direct la ñu soxla yàlla moo tax Maodo liñ ci bëgg a indi rek mooy téeréem bi ñetti niveau yi ci nekk niveau am niveau xaas ak niveau xaasul xawaas ci ñetti xul yooyu mu génne ko ci xul wallaahu ahad génne ko ci alquran ñu jox leen kàddu bi bu ñaareel bi mu ne ko xul bi dellu ci aynul maarif bële nuurul mutalsam moo ko moom beneen bi nuurul kalaami am moo ko moom beneen bi nuurul atwaani moom moo ko moom ci ñett yooyu nag comme tawxiid bi ab Hamid doon wax moom mooy dépensé Seydi Hadj Malick mu ni yàlla ni ko xul kon saaru alxuraan xul wala waxaat ñetti turoo ci nekk xul allahu huwa ak ahad ñetti tur yooyu mooy turu yàlla yi ahad dellu ci xul li ahlil am allah dellu ci xul li ahlil xaas huwa mi nga xam ne kenn mënul jàkkaarloo moom dellu ci ahli xawaasul xawaas mais comme alhamdulilah zil ijaadi wal qidami Maodo bi muy jàngale mimi ya daf ko indi ci juróomi martaba yi dafa jël aalul malakut aalamul naasuut aalamul haahuut aalamul jabaruut ak aalamul laahuut jël ko dugal ko ci biir miimiya bi nga boole kook jël astronomie dugal ci biir bayit mu njëkk bi mais jël science naturelle ak science physique dugal ci biir bayit mu njëkk bi yooyu yëpp mu symboliser ko génne ko ci lan alhamdulilahi rabbil alamina parce que lu tax liñ ñu njëkk a wax muy maam aadama mooy bi yàlla awalee ruux ci moom mu ñëw ci bakkan bi mu war a tus te gaz la boo xam ne bu génn woon aadama dee mu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye yàlla ni la ñu mujj a wax ci sunu dund mooy wa axiru daawahum an alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ xaaj maalik jàng la ñaar alhamdulilahi zil taysiri yàllaahu waaye jàng le alhamdulilahi zil ijaadi bii nga delloo ko ci alhamdu gu njëkk ga si tey siri mais bii nga delloo ko ci alhamdulilah zil ijaari ci gu mujj gi mooy taxawaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais alhamdulilahi rabbil alamin nan la nekk 582 mooy alhamdulilahi rabbil alamin moo doo génne ko ci ilxaas ixlaas rof ko ci xilaas moo tax dinaa leen wax rapport xilaas ak ixlaas nan la demee li tax moo doo kenn mënta recopier xilaas comme teg huwa allahu ahadun allahu samadun yii ñoo ñekk ci ixlaas huwa boo ko xoolee 11 la nga multiplier ko par 2 mu jox la 22 allahu 66 multiplier par 2 mu jox la 132 ahadun 13 allahu gi ci des 66 multiplier par 2 mu jox la 132 samadu 135 multiplier par 2 mu jox la 270 boo ko wàccee muy mooy alhamdulilahi rabbil alamin boo ko déchiffré 682 la jox mu wàcc nag ni wa alihil muhtadin al xiiratil kurama al mutami siratil muxtaaril xadami nga yëg ba tey ni jàngale Maodo bi nga wax ak deuxième étape boo soog a jàng alihi ñooñ yonent bi la mais sëñ Munir Sarr bi ko sëñ Babacar di jàngal xaside bi ci ahlu xaqiqatil xaqiqa dafa ne ko wa alihi ñeenti saxaabaam yi la al muhtadina mooy Seydina Aboubacar bi ñëpp jaxasoo moo leen tegaat ci yoon wi teg leen ci raay bi nga delloo ko alxiirati muy kan Ousmane mi nga xam ne dafa yar woon ba malaaka yu rus ko alkurama mu delloo ko ci aliyun karamallahu wajhahu al mutami siratul muxtaar mu delloo ko ci seydina omar mu bind ca saraa bi waxat saxa hadal kalaam mais ndeke jawharatu kamal ñeenti ayn yi ci nekk ñoo gunge Seydina Muhammad te mooy aynu rahmati rabbani aynil maarifi ak aynil mais ñeenti ayn yu bu ñu dajaloo fañ koy sottiwaat moom la Omar mujjee muy muzunul arbaax bi kulli mutaaridin moo xam minal buxuri wal awaani la moo tax saxaaba yi seen tur ñëpp ayn la mooy ñeenti ayn yi Aboubacar Abdul Kaabati Omar ayn la Ousmane ayn la ayn ayn la ñeent yooyu ñoom ñoo supervisé ba gunge Seydina Muhammad moo doon di ko jàngale ci biir téere bi mais comme alquran nag ñeent yi la te jaafar ibnu muhammad moo ko wax moo ni dafa amee ibaaraat am ishaaraat am lataif am xaqaiq Maodo ci yooyu la déparé bëgg téeréem bu ci nekk nga dem ci biir alquran nga mën cee génn ñeenti maqaama yi bayit bu njëkk bi 46 xaraf la ah Maodo xam ne awalu walillaahi fil ard huwa aadama mu génne ko def ko 46 xaraf jël salaatu ala nabi nga xam ne ci ñetti maqaama lay dem inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ñett julli yàlla malaaka yi ak nit ki sant mu julli moo a yëg ni comme ñett yooyu am na ndeke am na salaatu ala nabi buy dellu ci maqaama jalaal am buy dellu ci maqaama jamaal mais am buy nekk ci maqaama kamaal mu ne ma arada raadu wala warqa u tan xebbu min hadiliha wa jara damano ala xalami ñu ne ko moo wax mu ne ma arada raadu dënn bi bruit bi mu def salaatu ala nabi la mais doole ji daa bari ba maqaama jalaal lay dawe wal warqa u tan xebbu min hadiliha petax mi baat bi dafa neex ba salaatu ala nabi ci a jamaal lay dame waaye wa jaraat damoon xale xalami mu war a dem ci salaatu bi dellu ci maqaama kamal Maodo bind pour leeral ci biir mbind mi moo tax ma wax leen feuille blanche bi ñu ko xasee ni ko yow ni nga weexe woon ni nga rafete mu ne bu leen ma tooñ daa ma tooñ parce bu ma daa ñuulalul woon taqal ma tey du ma mel nii ñu song daa daa ni man du man xalimaa ma tooñ su ma xalima bàyyi woon ci encrier bi taqal kenn ñu song xalima mu ne loxoo ma tooñ moo ma fekk ca barax ga dagg ma yett ma sama gémmiñ gi gis nga ko def ñu song loxo loxo ne xola ma tooñ que bu ma xol yónniwul woon du ma dagg xalima ñu song xol xool ni xel ma tooñ parce que bu ma xel xamuloon du ma dem di dagg bant ñu song xel xel ni xam-xama ma tooñ ndax su ma xamuloon duma ma yebal xol ñu song xam-xam xam-xam ni bind ma tooñ moo di ne ko jaraa dama la ala xalimi kon ñu tëj ko foofu mais sew sew bu ndaw rek te ñu tëj ndax njëkkanteeg temps bi xam nga Maodo dafa ni min baadi maa xadd xalaa waawun yuqaalu la hë anti xummilti baddaran comme ñetti xaraf ñoo ëpp martaba ci xarifi arxul ci xarifi arab muy miim parce que miim la tàmbalee jeexe miim ak nuun nuun la tàmbalee jeexe nuun ak waaw waaw la jeexe tàmbalee jeexe waaw amul beneen xaraf nag booy jël ci arab bu mën loolu jiim jiim la mais miim la tëjee laam laa la mais miim la tëje kaaf kaa la mais faa la tëjee ñett yooyu nag moo doon tànn ci benn muy xarfu waaw bi nga xam ni mooy ahadun parce que waaw ñaari six la boo ko boolee douze la ak alif gi ko xëcc muy treize treize di ahadun yàlla ne dama bind aadama ala suuratihi nitu yàlla ba ne comme ci suura yàlla la ahad la woon mais bi alifu ahad dalee ci xaagi la def jël tajalli def miim miim googu mooy ahmad xaqatu ahmad yi judd bi xaqatu ahmad yi juddoo nag sëriñ Hadj Malick bëgg ñu jàngal garaatu Maodo mu jox ko ci ñaari martaba martaba nu nuun ca la binde nuun ya mais martaba miim ca la binde miim ya laaj badr weer ñu ne ko 30 jours la mu jël miim ya def ko départ ci alhamdulilah zil ijaad tëjee ko xamdan yuwaafi jël si leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu comme nag baa mooy deuxième xaraf euh, jiim mooy troisième xaraf ñu gëjal baa multiplier ko par deux mu jox la six six yooyu di symbolique nga xam ne moom moo am euh, genn wàll muy trois am sulus mooy nga def ko 3 muy 2 mais mu am sudus nga def ko 1 mais boole boole 6 la lay delloo moo tax mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee avant yàlla di ko wax moom yaayam ni ko ëmb nga yonante bi dafa bàyyi ba 6 mois weesu parce que ci 6 mois yooyu yàlla nee na hamluhu wa fisaaluhu thalaathuuna shahran fokk mu am 30 mois mais yéen nampal leen seen doom yi ñaari at xaw ni hawlayni kaamilayni liman araada an yutti marada nga génne vingt muy ñaari douze muy vingt quatre nga benn génne ko taraan mu de six sa jabar bu amee six mois am doom doom ja yooyu yaa ko jur kenn duñ dañ koo ëmbal moo ni kon nag bu may joxe dund jund yont bi jaba huda suma bawan wal baha adaban hamlun kon am na ñuy ëmb juróom benn weer am na lu ñu doon ci Seydina Muhammad am na ñu koy ëmb juróom ñaar am na lu ñu ci doon moo da nag nag jàngale moom moom mooy suratu aadama delloo ko Seydina Muhammad su ko defee nag li ñu tëje mooy miim ya sew sew yi nga xam ne Seydi Haaj Maalik def na ko comme yàlla dafa ñu bind fii dulumaatin salaasa moo ne bu leen dem rek ñetti lëndëm ñetti lëndëm dafa dafa simple ndekk ci science boo demee ci xalxul insan bay na tibbi wal quran moo doon ndeke ma nga fay génne ni ñetti ndox nekk ñetti lëndëm yooyu du lëndëm ñetti ndox la yi ëmb nit am aminon ak disudia ak corion ñetti ndox yooyu di dundal nit ba nga xam ne bu matee génn génn mais wa isa sawaytuhu moom tur yi moom arafi wa nafaxtu fiihi min ruuxi ma maas xaraf bi kon faqahu lahu saajidina su boobaa nangeen ngeen liir xaraf jël maanaa yi kon kon kon euh, euh, min baadi maa xad xalaa waaw yuqalu ha amit ha anti xummiti badran waaye nag isa wadaatihi sammihi muhammadan kañ nga koy tuddee muhammad mooy bu ñu jëlee araf yi boole ko ak baat yi ba mu mat muhammad mais ñu maas ko jël njëkk gi def ko lonk kon nag su mihi muhammad al amrak tumi ay foo fa taxtani mi su ko defee nag tëj comme moodoo ci ñett yooyu la def euh, ñu jàngale ci alquran amma àlliyun bilaa shakkin xadil taqaya moo tax ci biir baytu xilaas dafa indi amma ba pare ni àlliyun ni bilaa shakkin xadil taqaya te indul faa gi te dañoo jàngoo ci naxwu amma ka yokk yakku min shay'i wal faa li tilwi tilwiha wax waqaa ñu ne moo tax pourquoi yow nga ñëw ci miim ya dagg faa gi ba pare ni amma àlliyun bilaa shakkin ndekk Maodo delloo na ci alxuraan ni ñu ñaari ñaari faa dafa am yow ma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun fa amma alladina iswadat wujuhum akafartum mu ne Maodo ne delloo ci alxuraan yàlla indiwul faaga moo tax ma lonk ko foofu. beneen mooy lan Seydi Hadj Maag jàng ci benn bay bi moom bi ñu dàqee yont bi ba mu génn Sabir dafa ne ko yont bi wàcc ma xeraa ni ko yont bi kaa yéeg ci sama kaw Maodo ni ko kaay la ma jàngale ñaari montagnes yi lan moo tax Hera ni ko Sabir ni ko wàcc ma Hera ko yéeg ma. moo da nit ñu booba doj yi yegg nañ ci maqaama nit maqaama yàlla ba yéeme ba sabir tollu ci maqaama xawfu mais xeraa toll ci maqaama raja werd ko ba yàlla jox leen ko sabir ni ko ci samay xawf bi may bañ ñu rey la ci sama kaw ëllëg ma koy re layoo ci kanam yàlla wàcc ma xeraan ni ko man ci maqaama rajaa u gi ma am yaakaar ba ëllëg suñ la rayee ci sama kaw ma taq ci dere ga layal la ci kanamu yàlla ni man lañ rey ci yoon man ko doon garde jël ci maqaama rajaa u moo war ni kon janaaxay rajan wal xaw fi tir nax wa malikin ñaari dojooy noonu loolu la doon dund ci tëj nag waqad macha xaafiyan wal barru yaxmiluhu jihatuhu daala aboubacar Maodo nee na bi muy gunge Seydina Muhammad da ko doon garde ci ñeenti koñ yi nday joor càmmoñ kanam ak ginnaaw fekk alaaji Malik jihatihi sitta la defoon six six six place sëñ Babacar ni ko attends boo waxee juróom benn place ni Aboubacar daf ko garde ci kanam ak ci ginnaaw ndajo càmmoñ ak ci kaw ak ci suuf xale yi ñëw ci jamono seen xam-xam daan la poser question nan la Aboubacar garde yonent bi ci kaw ak ci suuf sëñ Babacar sëñ maa ni kon nag léegi changé ko jaf di jëxatoo daala mais mu ne ko yow ma ci jëxatu daala mais yàlla dafa wax la aatiyannahum firawna min bayna aydihim wa min xalfihim mais wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim sëñ Babacar ko waaw xoolal ndegam zahir day jaaxal xale yi min bayna aydihim yoo seen kanam min wa min xalfihim min mais nday jorog caam mu ne an aymaanihim an chamaati waxul min chamaali wa min aymaanihim moo dooree ni ko waa parce que lu tax ci nday joor ashaabul mash ama ñi ngi ci ñooy garde nit fii ashaabul mash ama ñi ngi ci càmmoñ ñooy garde waaye pour ci kanam amul ñuy garde pour ñu ñëw ci amul problème min rek la mais pour ñu ñëw ci côté droite mbaa côté gauche fokk ñu jégg ñooña moo indi an aymaanihim ka an chamailihim su ko defee nag eh, wolof dafa am lu mu nee na ku sàcc mbaamum lawbe jaay ju ko ca kër géwél yi bu topp mu yegsee ba ca kër géwél yi bu coow li jibee war laa maanaam jataay bi laajul eh, ni ñu bëgg a tënk ci li ñu bëggoon wax mais Euh, tëjee ko rek comme ci tariqa tijaan bi la mooy aynu rahmati rabbaani moo du jàngal ñu ni fukki aynu yooyu ak ñaar moom la sëriñ xaaj maa junj ci wa kaana muxtajiban min qablu fii xujubin yu sabbihu laha fukki xajaab ak ñaar yonent bi dugg na ko mais bi mu ko génnee ñan ñoo tax mu dugg ko mooy ñun fii aalamul arwaax yi parce que aalam boobu al arwaaxu al jismaaniya dafa am ak al arwaaxu al ruuxaaniya moo du al arwaaxu jismaaniya la ñuy jàngal fi aalamul mulki mais fii aalamul malakut am na benn arwaax moo doon ne la kooku nag dañ ko war a lijjanti loolu moo nekk ci fukki per jawharatul kamal bi ko yonent bi pare ñett fukki aynu ak ñaar lañ jox muy aynu rahma tawhid aynul ubudiyati aynul ixlaas aynu sidqi aynu tawaadu aynu rida wa tafwid aynu sakinati aynu saxaay wa tasid aynul yaqin aynul fiali aynul mahabba ak aynul uns ñii mu séddale ko ñu yàlla jël ci ñi xulubul aarifina ñi oqulu aashiqina ñii jël ci muy asraarul waashiqina loolu nag moo tax jawharul kamal yàlla nañu kon mi ngi noonu nga génne ko ci alquran ñu tëj allahuma subhanaka allahuma salli wa sallim sallu alayhi wa taslimu ayni rahmati wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina ar rabbaniyati kunu rabbaniyina al yaqutati al mutahaqiqa ka annahunna al yaqut wal marja bi markazil fuhumi wal maani fa fahimnaha الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق البرق الأسع يكاد البرق يخطف أبصارهم بمزون أرباه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المائيات لكل متعرض من البحور والأواني قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ونورك اللامع نور على نور يهدي الله لنور من يشاء الذي ملأت به كونك حي tati bi am kanit l makaani inna makkanna lahu wa atayna min kulli shay'in sababa ani l maarif aqwam inna hadi alquran tahdi ilayhi illati hiya aqwan siratika tamil asqam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim allahumma salli wa sallim ala taala alhaq bal naqdif bilhaq ala albatil fa yadmaghuhu fa idha huwa dhaqiq alkanz alazam wa kana tahtuhu kanzun lahuma ifadatika minka wa daani ila allahi ihatati nuri mutalsam yahdi llahu li nuri man yasha alihi ila almawaddata salatan tu'arifuna biha iya qul in kuntum tuhibbuna allah fattabihkum la wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.